salaamaaleykum mbokk auditeur auditrice Rewmi FM dal leen na jàmm seen émission li ci réew mi euh, di émission bu leen réew mi FM di proposé lundi ba vendredi 11h 12h comme ni ñu koy defee saa su nekk quatre sujets la ñuy indi waxtaan ci entre ñun bokk na ci inondation yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku lundi bële passé ba lundi tey mi ngi taw te mu mel ni jeexagul. Euh, ndox mi bëri na euh, dégâts yi bëri na itam dinañ ko fi waxtaanee ak euh, plan décennal de gestion des inondations bi nga xam ne président Macky Sall wax na gouvernement bi ñu taxawal ko ñeel horizon deux mille vingt trois deux mille trente trois dinañ waxtaani itam rapport bu ministère de la santé et de l'action sociale génne ci mbirum hôpital Kédougou ak femme bi nga xam ne moo fa génn àdduna. Euh, ba ñu ba muy euh, wasin ci noonee la ñu jàpp ñetti euh, yi nga xam ne ñoo yëngu ci wàllum santé dinañ waxtaanee itam président conseil constitutionnel bu yees bi dinañu waxtaanee ay mbiram dinañ waxtaanee itam Malick Gakou jamono ji officialisé na candidature am ngir ñu jëm ngir élection 2024 yi mbokk yi laataa ñu ñëw suñu premier sujet samay collègues lay bàyyi ñu nuyoo Jacques. maa ngi lay Sylvie di nuyu kon ñu ñuy teew lu ñëpp. Loro. nuyu naa auditeur u Rewmi FM yëpp. waaw Abdou Khadre. waaw nuyu naa ndaw si nga nuyoo Rewmi FM yëpp. <laughs> nekk ci technique bi mbokk yi euh, sujet bu ñuy njëkk a euh, waxtaanee mooy inondation yi fii ci Ndakaaru ak banlieue lundi ba tey ba lundi tey sept jours mi ngi taw te bu ñu sukkandikoo ci ANACIM euh, première quinzaine septembre yëpp dina ko taw donc taw yi ñu ne jeexagul. experts yi ñoom ñëpp a ngi wax ñee nay changement climatique bi ak urbanisation bi nga xam ne euh, yenn experts yi wu ñu ko ak euh, non prise en compte euh, du plan national d'aménagement et de développement des territoires mu ne ñooñu loolu mooy cause yi nga xam ne bokk na ci inondation yi fii ci Ndakaaru ak banlieue bi tey dinañ amal benn sommet sur l'adaptation en Afrique euh, ci Pays-Bas président Macky dina ko teewe en tant que président de l'Union africaine li ñu ci bëgg rek tey moo di waxtaan li nga xam ne mooy changement climatique yi nga xam ne yenn experts yi jàpp nañu bokk na euh, ci li waral inondation yi fii ci Sénégal ak yeneen gox yu bari ci àdduna si waaye ñun lu ñu soxal tey président Macky Sall euh, bëgg na corriger li nga xam ne moo fi amoon maanaam inondation yi mu dakkal ko ci noonu wax na nguur gi euh, ñu formuler benn plan de décennal de gestion des inondations horizon 2023 2033 euh, mu doon lu nga xam ne nag day dëppoo ak plan national d'aménagement et de développement des territoires atum 2020 waaye ci noonu wax nañu accélérer plan bi fi nekkoon déjà 2012 2020 la woon ba jamono ji yàq euh, sa xalaat. waaw euh, plan boobu ba léegi parce que 2012 2022 la plan décennal. mu nekk def 10 euh, mm-hmm. ans. mais li ñu ci mën a jàpp mooy est-ce que mooy solution bi walla lan la indi concrètement comme solution plan boobu parce que teewul plan baa ngi fi li ñu ko waxee 2012 ba léegi. Mm. mais chaque année ñu déclenché at beneen plan. mooy plan ORSEC nga xamante ne en cas catastrophe la. boobu ñëwaat dolli ci mais du tee gis nga li ñu ñi di dund. plan décennal bi nag ni nga ko waxee xam nga ci 19 septembre 2012 la woon. ndeysaan mm. lépp septembre lay xewe xewee. Mm, Macky mu ngi yaat <laughs> waxaat beneen plan te septembre la ko waxee. ak lu ñuy dund tam ci xeetu inondation daanaka mm. septembre lay gën a tar. Mm-hmm. léegi nag 2012 euh, boobu ak léegi ñu waxoon ci cent 766 milliards. Euh, gis nañu euh, annonce bi neewoon nañu démarré nañu yëf yi mais euh, ci fan lañ ko jarale ana lan nañu def concrètement ci plan boobu ba mu nekk lu palpable parce que tey ñu ngi annoncé beneen plan deuxième plan te jamais ñu wax ñu ñu évaluer ñu jamais ñu wax ñu plan décennal bu njëkk bi temps la door mhm. temps la war a jeex Euh, ba ñu xaymaa lii lañ ci def ci xaalis lii la ñu on mais lii lañ ci jote def lii moo des ak fii ak fii lañ ko dugal kii ak kii moo jote laale xaalis bi mhm. les façon ba léegi leeragul ci nit ñi mhm. euh, je me rappelle sax euh, ministre délégué Fatou Tambédou après en 2016 dem na ci kanamu député ñu laaj ko xaalis bi ak yooyu moom sax nee na en tant que ministre délégué nee na xamul mënul wax fan la xaalis bi jaar mënul wax tamit nuñ ko dépensé loolu mu ngi même ci YouTube bi boo dugal léegi nga vérifier ko mhm. en fait c'était euh, c'est même inimaginable yow ñu jox la responsabilité nga jël say initiative ci kanamu opinion publique yëpp ah nga toog ba mu def ab diir rek ñu ne la xaymal ñu wala xaalis bi fu mu dugg nga ne yow en tant que ministre délégué munoo xam fu mu jaar alors que bu ñuy lancé plan boobu je me rappelle même euh, ministre euh, délé ministre euh, kii Omar Gueye mi yoroon wàllu collectivité territoriale inondation dina fi jeex il avait promis ça clair et net mais tey la wàllu gën a aay léegi finalement lan mooy njëriñu plan bi wala bokk ndaxam dafa commencé gul ak léegi en tout cas li ko taxoon a jóg moom mooy dakkal inondation yi fii mhm. loolu eh, taxoon na ba mm, lu ko jiitu njiitu réew mi jël ay mesures fii ñu ngi fàttaliku Sénat bu ñuy supprimer mhm. ak euh, li nga xamante ne moom moo jëm ci conseil économique et social gis nga paradoxalement ñu ngi ci septembre mhm. démb la ñu renouveler beneen institution au conseil des collectivité territoriales mu ngi am ci jamono yi mbënn mu gën a métti bu 2012. Mm-hmm. alors que boobu euh, taxoon na ba njiitu réew mi supprimer fii ay institution mm-hmm. moo tax parfois euh, du ci ay dogal wala du ci ay programme wala du ci ay ay plan décennal ak yu kenn xamul mooy yaakaaruma ni loolu mooy jeexal euh, inondation bi fii mm-hmm. parce que problème bi dafa nekk bu diis bi nga xamante ne nu Sénégalais wala bokk nu suñu dirigeant yi muy Macky Sall ak ñi mu ko fi jiitu yëpp gérer problème ni ñuy gérer difficulté dafa mel ni amuñu ñu seen xam-xam màcc ci wàll wi amuñu ci expert wala gisuñu sax ah li nga mm-hmm. xamante ne moom mooy say prévision yow yaa ngi toog ba léegi démb maa ngi dégg ministre de l'intérieur di wax non dina tawaat ak yooyu et pourtant balaa nawet bi di jib sax ñun depuis ay janvier presque lañ doon alerté fii ci ay focus mm-hmm. ANACIM nee na li di ren ji dina taw mm-hmm. telle période si dina bëri mais yow en tant que état buñ la nee ndox dina bëri wala dina lii au moins nga même tabaski sax xanaa doo xaar ba jour yi nga doog a dem nduggi uti xar ak dem ñawlu da nga koy waajal parce que xam nga liy ñëw ah, li ngay soxla léegi yow ñu ne la dina taw dina def lii doo jël say matukaay ah, da ngay gis ñu dem ba ci biir nawet wala ci biir taw bi sax ñuy doog a nekk fii. Mm. di yokk ay miiru bassin wala di déboucher ay caniveau alors que yow balaan nawet bi di jib waroon nga jël ci matukaay yooyu yëpp mm-hmm. man loolu moo ma xaw a jaaxal mais du problème mu xaalis tàmb pro euh, catastrophe wala leen kii rek. soit rek ñu déclenche dañu gaaw ci autour gaaw ah, ci décréter tant de xaalis moo fay <laughs> dugg ba pare doo xam en réalité lan lay njëriñ wala euh, du ko saafara. parce que mm. lii nii xaaral rek fii ak léegi ñu dugg ci octobre nawet bi jeex ñu fàtte plan yëpp ñu nekkaat ci leneen. du ñu xam ni nawet chaque année dina am mm. dina dans quelques mois. beneen dina ñëwaat ne du ñu ci sax euh, farlu loolu mooy le plus grand problème. Mm. ren nag moo ñu joxe ceeb mais fii leen inondation doon am ñu génnee ceeb joxe wala gi sans ñu ñëw xool problème bi dëgg ñun nu ñuy dem ba saafara ko wax dëgg yàlla kenn xam na ñëpp xam nañ ni bon état mënul téye taw loolu tam ku ko wax da ngay nax sa bopp mhm. mais wax dëgg yàlla dangay waaw même bu ñuy inondé mais euh, du tee nga atténuer un peu euh, les souffrances parce mhm. que dañuy wax ñun ndakaaru tawul de semaine bi ngay wax ni man def naa une semaine Ziguinchor boo xamante ne pour génn <laughs> dem ci ëtt sax boo moytul nga tooy parce que presque euh, dix-huit heures sur vingt-quatre dina ko taw du ay wis na taw dëgg dëgg dëgg mais yooyu ah dëgg yàlla dañuy wax plan d'urbanisation bi dëgg la am na problème ak yooyu mais ba léegi ñi ñaa ngi wéy di tabax ci bërëb yi nga xamante ne c'est des zones inondables ñan ñooy joxe autorisation yooyu loolu yëpp yooyu kuréelu état la dañuy wax lii ba pare suba ñu def safaan mhm. loolu mooy euh, problème bi mais question inondation moom euh, problème la bi nga xamante ne bu bu fës mhm. bi ñu jàpp ni euh, nguur gi tële na ci dëgg-dëgg te man damaa yaakaar ni du ay milliards plan bi ñuy annoncé mhm. du yàgg waxaguñu ay milliards waaye xam naa ne bële sept cent soixante six milliards la ñu waxoon bi xëy na mu yegg ci mille milliards te góoma dina ko saafara loolu Jacques mu ngi koy wax sànq peut-être am na experts yi ñu si bëri wax nañ ko que am na ñoo xam ne dañoo dëkk ci ay zones yoo xam ne euh, ay zones inondables maanaam euh, zone yi faral di am ndox. Mm-hmm. Euh, est-ce que loolu tey ko déggee du ñu ne peut-être Dakar bi yëpp la. parce que Dakar amul fi nga xam ne du am ndox. Mm-hmm. en tout cas fi may njëkkee pour peut-être camper mooy inondation fépp lay am ci àdduna bi. Euh, gis nañ réew yu ñu ëpp doole foofu seen autorité yi mhm. euh, di liggéey amul benn yi gis mhm. nañ ne inondation dafay am ba ñoom jaaxala mais euh, dañuy gis ne balay yàgg ñoom ñu daal di régler problème bi daal di évacuer ndox mi en tout cas inondation nekkul ni Sénégal kese lay am fépp lay am Pakistan ay France am na année boo xam ne inondation yu métti un peu le monde dëkk yi nga xam ne mhm. ñoo ñu gën assainissement gën ñu lépp gën ñu développé ëpp ñu jumtukaay mais man damay wax ni euh, li am fii ci Sénégal dafa dafa jéggi dayo parce que wax nga ko bu njëkk ba dañ daan wax ni benn partie ci ndakaaru rek moo daan inondé ak peut-être quelques régions euh, benn partie ci ndakaaru waaw banlieue rek moo daan inondé mais ren li ñu gis moom mooy pratiquement euh, quartier yu bari ay Ouest Foire ay gis nga zone de captage bi ni mu mel ña fa dëkk dee nañu sonn nañu ay quartier yu baree bari xoolal corniche beeg yëpp mhm. oto yi amatuñu fu ñu jaar dafay fees dell ak ndox banlieue bi moom image yi ma gis euh, dëkkuma foofu mais xam naa ni mhm. euh, ñi fa dëkk actuellement li ñuy dund métti na trop trop trop xam naa mhm. autorités yi war nañu dem wallu ji leen parce que pratiquement seen bagage yàqu ndox mi dugg na amatuñ fu ñu jaar seen fees oto nangootu faa jaar en tout cas population yi actuellement ñu ngi vivre l'enfer au niveau de la banlieue ak yeneen quartier yi ñuy annoncé aussi non si loolu lay ñëw mhm. imagine toi euh, ñu ne la am na ministère bu fi nekk ministère de l'eau de la l'assainissement ONAS nekk fi ñoo ñu déjà damay laaj lan mooy seen liggéey kon ñoom liggéeyuñu man damay wax ni ñoom liggéeyuñu il passent tout leur temps à de la politique gis nga mhm. discours euh, suñu autorité yi seen discours yi ñoo neex bu ñu waxee rek nga ne tout est rose lépp gongo lépp ay baax mhm. mais maanaam discours yi ñuy tenir ak xaalis bu bëri bi ñuy wax man jàpp naa ni fañ ko war a def defuñ ko fa parce que bu fekkoon def nañ ko fa mu fañ ko war a def gis nga plan yi yu bëri yi ñuy décréter du am ministère de l'eau et de l'assainissement dafa jeexal wax mhm. ona ONAS bokk foofu si bànqaas bi ñu jékki-jékki euh, président lancé plan de décennal lutte contre les inondations on parle de sept mille sept cent milliards et plus euh, lijjanteeguñ loolu ñu waxati ndox mi ñëwaat engage ñu jaaxal leen ñuy wax 700 milliards yooyu xaalis fu mu dugg nga dégg sax ñëpp ak ñoon mais nañ audité u sont où sont passés les les les 700 milliards de francs CFA wala lu ko ëpp pareeguñ loolu nga gis ni euh, ci mois ba président Sall déclenché waat plan Orsec parce que loolu yëpp ay mm-hmm. xaalis la ay milliards la ñuy wax plan Orsec boobu yow keroog la fi Antoine Diome def euh, face la presse di tirer un bilan satisfaisant mm-hmm. positif ci plan Orsec bi mais ça c'est du mm-hmm. n'importe Antoine Antoine moom ban Sénégal la nekk parce que gis nga nag <laughs> Sylvie ñoom dafa Sénégal dafa am ñaari Sénégal dafa am ñaari Sénégal bu fekkee ne da nga féete ci beneen Sénégal bi yow lépp ay positif lépp a baax mais ñun Sénégal bi ñuy dund tout est négatif dara baaxu fi ñoom dañoom seen Sénégal moo tax mu tiré un bilan satisfaisant ñoom seen parti du parce que ñoom peut am na fu ñu dëkk ak kii ñoom peut duñ yëg li askan wi di dund moo tax ma ne la Sénégal pour nga comprendre autorités yi seen discours et tout euh, da ngay xaaj Sénégal ñaar ñoom peut ñoo nekk ci Sénégal bu baax bi mais Antoine Diome bu fekkente ne nee na euh, dafay tiire un bilan xawma satisfaisant ci plan Orsec bi euh, ça c'est du n'importe quoi moom ci Sénégal mais pas ñun Sénégal bi ñuy dund actuellement où tout le monde souffre tout est bloqué tali bu baax amu euh, na assainissement amu fii quartier yi nga xam ni sax dañu doon wax euh, quartier aisé yi la dañu mhm. inondé bloqué tout dama ne la tout va mal kon Antoine Diome dafay dafa yab nit ñi ñu pare <laughs> dafa yab dafa yab askan wi moom bilan bu mu dégagé mm. c'est ñoom seen Sénégal voilà léegi ñu pale si loolu pareeguñu euh, plan Orsec xaalis la ñuy wax loolu président Macky Sall jóge moom mu nga fële ca Màkka yoon bi euh, moment bi nga xam ni les gens souffrent il faut le diir parce que man image yu ma gis Euh, je pense que boo jiitee réew gis image yooyu c'est tellement sensible da nga war a sax écourter euh, sa voyage ñëw Euh, wallu askan wi parce que euh, situation bi c'est plus catastrophique que moment bi mu doon am mu naan nañu dakkal Sénat bi nañu dakkal lii xaalis yi ñuy dugal foofu nañu ko jël dimbale askan wi nee naa la actuellement Sénégal crise bu muy dund mhm. c'est moo gën a métti plan euh, moment boobu mu doon arrêté mu doon supprimer Sénat kon mhm. c'est yërëmuñ askan wi parce que ñu ngi organiser ay élections di teg ay HCCCT ça c'est du n'importe quoi mais gis ñu naan dañuy mhm. féliciter ay ay ay ay conseil au conseil dama ne mais ñii ban comédie la ñuy joué xanaa ñii gisuñ askan wi. mais mais ñii buñ continuer nii dama ne la deux mille vingt quatre buñ posé ñoom candidature man sax bu ma demee dama leen di gañe déedéet man man bu ma demee man man rek su ma demoon 2024 ak ñoom li askan wi di dund actuellement ñoom ñu ne tout va bien man sax dama leen di gañe non non buñ éliminé woon soog éliminé ñëpp man ma dem man sax damay gañe Macky Sall est-ce que dégg parce que xam nga lu tax dañ dañuy sanctionner le président Macky Sall ku mënti ku mënti demal dañ koy mhm. sanctionner loolu c'est clair parce que les gens souffrent te ñoom ñu ngi jouer seen comédie ñëwuñ wàllu leen dafa warewuñ dara luy wane ni dañu nekk ci catastrophe les mhm. gens souffrent yow xanaa Sylvie gisoo ñu nekk ci banle bi li ñuy dund man am na image yoo xam ne su ma ko commencé seetaan sax du ma ko mën a yeggale te man du ma autorité du ma dara aw ma aw ma mais yow naka ngay nekkee autorité di gis yenn image toog fi ngeen toog. Mm-hmm. Antoine Diome ñëw di tirer un bilan satisfaisant pour seen Sénégal ñoom mais ñun par suñu Sénégal bi ñuy xëyee mm-hmm. euh, di yeewoo. ba pare président di déclencher beneen plan. Euh, décennal de lutte contre les inondations yow ñuy wax ni koppar yi ñu dugal ci premier plan bi anamu. parce que nit ñaa ngi bëgg a dee te moom waxoon na ni problème mu inondation bu mu fi fekkoon en quatre ans. Mhm. réglé na ko affaire bi ñëwaat tey gën ñuy gën a les gens souffrent nga ne yow déclenché nga beneen plan ñaata milliards lañ siy def. Mhm. xaalis 700 milliards est-ce que leer na si bopp askan bi moo tax ma ne la ñii. yërëmuñ ñu maanaam yërëmuñ sénégalais yi wala sax ñoom image yu ñuy gis ma damay xool ba xam est-ce que ñi seen place su xool yi xool moo fa nekk wala lan moo fa nekk parce que yenn image mënoo ko seetaan. Mhm. Euh, nekk autorité toog fi nga toog di mhm. ay Antoine Diome di génn di tenir yenn discours yi ma ne mais pour yéen seen Sénégal votre Sénégal ça marche mais mais notre Sénégal là ça ne marche pas merci Moro voilà waaw man fi Moro daaneele ci Antoine Diome laay njëkk euh, njëkk jël ndax xamul tax responsabilité bi du Antoine kese mais Antoine dafa xam ne lu mu wax euh, presse bi dañuy xëy génneel ko askan wi sans commentaire ni analyse ni démenti <laughs> loo mais loolu mais loolu moo am Sénégal mais mm-hmm. Antoine jom tey bu waxee ba ne gër géex wax loo xamante ni la si ëpp dara du ci dëgg <laughs> moom Serigne bay Thiam mais presse bi ñëw def ko ay à la une mel ni Antoine li mu wax lu wér la presse bi yi noonu bëgg loolu mooy lëndëmal askanu Sénégal man pour man loolu du loolu journaliste mm. maanaam journaliste moom dañuy ji dem rek conférence de presse ministre bi wax lu ko neex mm. mu ñëw andil ko askan bi mm-hmm. doo si commentaire doo si def man pour man loolu mbir la moo xam ne dañ ko war a xoolaat mm-hmm. euh, leneen li nga xamante ni bëgg naa ko cee wax mooy nguur gi dañoo yor nguur goo xam ne ñoom non seulement tële nañ mais li gën a garaaw mooy ñàkk wax dëgg gi nga xam ne ñoom moom lañ làmbool da dégg léeg-léeg Macky na la changement climatique léeg-léeg ñu ne la taw bi wax léegi taw bi taw bi yàlla la loolu est-ce que maanaam pour man loolu boo ko waxee nit rek mooy yam nga ko mooy taw bi taw bi yàlla la taw bi bu nekkul bu ko yàlla tawul kan la taw. moo jaaxal kan koy taw bu ko yàlla tawul kan moo koy taw. wala ay changement climatique. man pour man loolu wax dëgg yàlla du wax ji. Euh, Macky Sall mënut a ni beneen plan décennal boo xam ne bii fi nekk. évaluer wuñ ko. ba pare même sax jërul évaluer ndax bu amoon sens wala mu am benn njëriñ ñun gis nañ ne kon danañu si bénéficier wu ndax bala indi maanaam lañ doon une euh, une yi lañ doon def journaliste yi doon ko une 2012 ba léegi presque bu tawee loolu la ñuy wax dakaar tëmm na quartier sàngam mais Grand Yoff man ba ma ko xamee ba léegi ak zone de captage ak euh, man chaque chaque ma dégg loolu xanaa kon milliards ñoom boole wuñu leen mais nag balaa nga dégg zone de captage xam nga ne day mais nag waaw <laughs> mais sénégalais yi il faut que ñu xam ne xaalis bi mun munta naax saaye noonu hmm. keneen ku fi nekk ëllëg si biir dina ubbi enquête ci plus de 766 milliards ndax presque mill milliards mais mill milliards ña mais foofu fan la dugg man pour man ñemuñ ko bàyyi noonu mhm. ndax fii lañ toppoon euh, libéraux yi ñoom Karim Wade mille milliards lan la mën a jënd ñaata la mën a jënd ci askanu Sénégal presque mille milliards loolu ñoom bu ñu jàppee ne wax keneen ku fi ñëw de bu dee respecté nga Sénégal yi wax dëgg yàlla euh, dinga nga ci jéem dinga di nga ci jéem a ubbi enquête mais Sylvie capitale du Sénégal capitale ah, Dakar dara baaxu non xam nga tey tali bu baax amu fi capitale du Sénégal. non xam nga lépp tëmb. noo xam nga tey lépp di dafa am loo xam ne non dafa am dafa am foo teg sa tànk dox amoo ko. xam nga xam nga tamit dafa am loo xam ne. Mm, waaw Macky ko fekk. ñi dëkk Cité des Eaux Macky Sall dëkkuloowu leen fa. ñi dëkk zone de captage avant Macky Sall la. Euh, nguur gi fi nekkoon am na si. part de responsabilité. ah évidemment ci ci ci assainissement. Uh-huh. avant nit ñi di fa dëkk. Mm-hmm. waroon nga def assainissement fenn. am na foo xam ne bërëbu ndox la amaana kenn waru faa dëkk. wala boo fay dëkk sax nga jël fa say nga jël fa nga jël nga jël matu méngoo ak méngoo yooyu parce que gis nañu ay dëkk. waaw fii nga xam ne ci géej la ñu nekk. Mm-hmm. mais nit ñi def nañu matukaay de telle sorte que nit ñi mën a dëkk ci ci kaw ndox. waaw léegi ah. xam nga xam nga tey bu dee tey par exemple tey loolu am na ba pare léegi lan moo ci des man pour man gis nga zone de captage ni mu mel ak bassin de rétention bi ni mu ko jege yaantoo man pour man zone de captage fi mu am jafe-jafe ndox moomu mais état bi waroon na ay matukaay bien vrai que nit ñi dëkk nañ ba seen kër yi wala nga ne dama leen di génne war nga jéem a xool beneen solution maanaam ndoxum taw mi euh, xalaatuñ si lu dut maanaam mu yàqu mu tuur daal ñun xalaat amuñu si beneen xalaat transformation te tey ndox ndox mi mënoon nañoo amal beneen njariñ man mm. waxoon naa ko fi nee na xaw kañ lay doon mais ay nit dinañu yor réew mi xalaat ko ndax soo xalaatee te yaa ngi dégg ñu ne la dañuy Lac de Guiers fan la nekk Lac de Guiers ba bëgg ñëw ba Dakar. Hmm. ni ndox jógee Louga ginnaaw Louga ñëw ba Dakar gii mais ndox mën naa jóge dakaar dem ba dem ba ca àll si ginnaaw Louga ndax fii tey bu ñu fi defoon ay canalisation yu baax. ndox mi mën naa jóge Dakar génn génn mën naa nekk Dakar génn Dakar ñu def ay bassin de rétention yoo xam ne euh, nit ñi danañ ko jël euh, ubbi def si yeneen forage man si def euh, ñi bay mbayum nor man see def mbay moomu hmm. sànq moro ma ngi naan Euh, yeneen réew yi dañuy taw day am inondation loolu wax la joo xam ne wax ju nguur gi de layoo la mooy boo waxee ñu ne la njëg yëpp yokk boo waxee ñu ne la geer bi. non mais loolu moom loolu moom dëgg la. waaw déglu la bu inondation bi amee di nga gis quelque temps après dinañ évacuer ndox mi yëpp ah, mais loolu moom mënoo la rek ça c'est waaw déglu ma expliqué la xam nga tey da nga war a njëkk ne la muy taw sa réew yooyu est-ce que taw na ko fii xam nga taw taw yooyu bokkul man est-ce que da nga war a mesurer ne taw yi muy taw fii boo ko tawoon ci réew yooyu inondation doo ko fa gis ndax lam fay taw bu ko tawoon. waaw muy taw par exemple benn Thiès wala <laughs> Ziguinchor. waaw ak li muy taw Dakar bokkul non mais en fait boo jëlee exemple boobu peut-être euh, dina wute parce que Allemagne par exemple. inondation yu métti daaw yi def plus de cent morts. waaw yooyu c'était nguur mënu ci dara parce que même lu ñu defoon ci. Hmm. canalisation lépp. ndox bi bokk moo ko ëpp doole ndox bi guddi ay garab. waaw ndox ndox boobu canalisation bi ko est-ce que gis nañu après responsabilité waaw mais que non parce que après même le ministre bi yor kii bi dafa démissionné. <laughs> waaw léegi man xam nga man waxuma ne. Hmm. yeneen réew yi duñu inondé man maa ngi maa ngi suivre actualité. loolu mënoo ko dindi hmm. non xam nga yeneen réew yi ñoo ngi inondé kenn weddiwul loolu mais dama ne la li ñu war a njëkk a wax. mooy bu ñu gis ne Allemagne inondé na Sénégal dafa war a inondé. waaw mais wii wii si moom mu inondé wul loo. Allemagne yow Jacques leer na la ne Jacques li muy taw fii ci Ndakaaru gii. Hmm. leer na la ne bu ko tawoon France wala mu taw ko Allemagne wala mu taw ko Belgique xam nga ne doo fa xaaj ba fay dégg sax inondation. sax ah, non non ah, ah. boobu dañ la bëgg a wax ne inondation moom fépp lay am. waaw non mais fépp lay am. mais boo bëggee ay fii li muy taw quantité bi muy taw fii di ko taw léegi non xaaral léegi léegi te par exemple léegi te par exemple par exemple tey bu doon tey dafa taw euh, comme par exemple tey ci Biras Doré Castor bi. Hmm. ndox mi maanaam ndox mi man faa def soixante douze heures ndox ma fa def soixante douze heures taw arrêté na te ndox maa ngi fa. Hmm. léegi ndox mi est-ce que mënuñu woon a xool fan la war a fan la war a jaar lan moo tax ndox mi jàllul. loolu est-ce que non c'est ça le le problème. lan moo tax ndox mi jàllul mais mais tamit Sylvie am na loo xam ne foog ñu wax ko euh, comment dirais am na askan woo xam ne ñoo lor seen bopp. yaa ngi dégg dem si fi ndox yi war a jaar parce que am na loo xam ne tamit problème de civisme la sénégalais yi ñun foog ñu xoolaat suñu bopp si affaire affaire civisme fi ndox mi di jaar ñu def ko ay dépôt d'ordure tuur fa mbalit mhm. kàcce boo gis. waaw maanaam dañuy fekk kii ñu këpp fa mbalit bi. mais bu ndox bi ñëwee fu muy jaar waaw ñu avancé merci Moro. insuffisance boobu tamit foog ñu xoolaat suñ bopp. gis nga Moro non maanaam maanaam ku ne da nga see am responsabilité. état am na responsabilité ndox mi bëri na waaye doyul ñu dem ndox am na côté boo xamante ni. dinañ am si part de responsabilité mooy incivisme bi am si dëkk bi. mais dégg dama ne la. milliards yi ñu rek commencé non non non Sylvie may ma 30 secondes. dama la bëgg a wax na la Sylvie. xam nga ñun dafa am lu ñuy kafe loo xam ne jërul kafe gis nga 666 milliards. ci réew mu 766 milliards ci réew mu ndóolee ni senegal duy caaxaan beneen bi mooy gis nga euh, maa ngi koy expliquer fan yi benn waay Serigne Mbaye Thiam dafa ñëw Touba mu ne. dinaa leen saafara jafe-jafe kenn du màggal si am problème mu ndox waa ji bi ma ko waxee dama ne ko yéen da ngeen a gaaw fàtte dama ne ko dangay dugg ci internet bi nga bind Serigne Mbaye Thiam màggal 2021 ma ne ko gis nga boo fa duggee <laughs> la la lam fa waxoon daaw mooy dinaa fexe ba du ngeen am jafe-jafe ndox léegi lam waxoon daaw nekkul dëgg waa léegi lan lu nga bëgg a gëm lu ren li man seet man loolu mooy sama problème waa ji merci <laughs> euh, ñu jàll wax ci euh, rapport bi nga xam ne ministère de la santé et de l'action sociale moom génnee na ko Moro si laay commencé dafa défendre li nga xam ne moo di agent yi yëngu ci wàllum santé Euh, mu doon li nga xam ne moom rapport am bokkul benn yoon ak rapport bi nga xam ne procureur moom la génnee di accuser directement euh, ñoom ñett agent yooyu le ñenn ñi homicide volontaire ak involontaire pour bébé bi ak euh, femme bi nga xam ne moo doon accoucher. man de de toutes les façons xawma li <laughs> procureur li mu wax ak ministère de la santé li mu wax mais man jàppuma xalaatuma ni sax lii nii maanaam dinañ si def. liggéey boo xam ne wala justice dina si def loo xamante ne dina servir de leçon ñeneen ñi parce que gis nga li procureur wax ak les ministères de la santé di wax munuñ kon séentu dossier bi daal di sori. Mm-hmm. Euh, dama ne la jàpp naa ne man. am na ku fii man sax dama xaarul dara si ñoom par rapport à ça euh, que agent yi am dëgg que amuñ dëgg que ñoom def nañ li ñu war a def que defuñ li ñu war a def euh, pour man sax problème bi du foofu parce que maa ngi fàttaliku y a quelques années mooy euh, waa jooju jë amoon euh, jabaram accouché euh, ñaari seex ba mu jël seex yi caaro yi foog naa la accouché woon ñu ne ko foofu amul place da leen di yóbbu parce que ay prématuré lañ woon jeune ne sais pas da nga leen di yóbbu beneen hôpital ci wër hôpitaux yi hôpitaux yi di ko refuser ba ñaari seex yi décédé noonu Euh, hôpitaux bu mu dem duñ ko nangu jël ñu ne ko parce que amul place principal Dantec fu ne dem na fa Ogi il a le tour des hôpitaux mu def nekkoon scandale coow lu bari mais waa moom nee na euh, à un donné am na fu deuxième seexam bi di décédé bi mu ñëwee ci accueil bi euh, ba wax ak ñoom nanguwuñ jël seex bi lu ko lu ko accueil mujjee wax bi mu bu mu bu mu def commencé def scandale di kaas mu ne ko demal fu la neex du mujjee fenn te quelque temps après dama ko woowaat waajooj lu sa dossier ak ñaari seex yi euh, décédé woon par négligence mu ne mujjul fenn te wax bi ma doon wax sax mujj gi dañ ma woo dig daf ma woo ne ma naa nopp ainsi de suite ñu ngi si dossier mujjul fenn mais soxna si man damay dëggal ka fekkoon foog naa hôpital Ogi hôpital général bu Grand Yoff ñu tuddee ko Idrissa Pouye la ma waxoon moom mooy demal fu la neex du mujjee fenn si koo xam ne dañ ko seetaan ba ñaari euh, seexam yi noonu la ko daal di ñàkkee mu ne ma looloo dëgg kon loolu kooku la mu waxoon du mujj fenn du mujju fenn man yaakaar naa hôpitaux yi euh, ku fi ñàkk sa bakkan ñu jàpp ne négligence la wala ñàkk toppatoo boo xam ne nee naa la ñëpp ko dund fii man personnellement dama ko dund euh, kenn du ma ko nettali nga gis ñu bëri dund ko yaakaar décédé que ça soit mu nekk loo xam ne ñoom def nañ seen liggéey ba yàlla jël la ñu xam ne def nañ seen liggéey wala mu nekk ci anam yoo xam ne jàpp nga ni négligence moo tax yow euh, nga ñàkk sa proche bi damay jàpp ni du mujj fenn fii ci Sénégal parce que gis nga euh, kaawu comment dirais-je euh, la femme de Louga ni mu daal di mujjee mujjul fenn pratiquement onze bébés morts calcinés fële ci hôpital bu Tivaouane fu mu mujj mujjul fenn da gis ni personnel bi ñoom ñooy génn di sitting pour ñu libérer man nee naa ñun sax nekkuñ fi pour di xiiroo ak ŋaayu ak man dama respecter le corps médical parce que fii nee naa la wérgu yaram mooy secteur bi nga xam ne dañ ko war a gën a toppatoo maitre leen dans de bonnes conditions euh, tànn tamit ñi nga xamante ni ñoo fay liggéey parce que la santé est un des droits fond euh, fond mooy droit bu gën a am solo ci àq ak yelleef donc ñu nekkuñ pour di xeex ak ay docteur wala ay infirmier suñuy wax sax c'est pour defar pour ñun suñ sécurité pour ñun suñ feebaree euh, suñ demee ci hôpitaux yi ñu daal di fay am lu ñu bëgg mais système bi ni muy doxee nii li procureur wax ministère de la santé wax xaw ma ku mu bett mm. parce que la waaja waxoon rek hôpitaux yi kuñ fi négligé ba nga ñàkk fi sa bakkan yow yaay perte fu la hmm. neex demal du mujj fenn du mujj fenn c'est ce que je <laughs> pense d'accord Abdou Khadre ñaari rapport yi nga xam ne bokkul procureur wax na lii ministère de la santé moom leneen la wax waaw xam nga problème mu euh, santé moom man jàpp naa ne tant que pression bi syndicat yi di teg état bu Sénégal tant que ma ngi am euh, boo xoolee presque solution da ci am ndax man hmm. dama li ma gëm mooy ak métier bu man di doon métier bi nga nekk si ngay def ay erreur si ngay fauté mm-hmm. si ngay am problème mm-hmm. mënoo nekk euh, magistrat ba pare ñu lay tudd ci ay hôpital wala ko am maternité ndax nekkoo ci métier boobu mm-hmm. ma ngi mel ni tey te médecins yi tamit il faut que ñu xam benn affaire seen njariñ kenn wérante wu ko ci dëkk bi mais médecins yi ëpp ñu njariñ jàngalekat yi nga xam ne ñoo leen jàngal ba ñu nekk ay médecins médecins yi ëpp ñu njariñ police policiers yi ëpp ñu njariñ gendarme yi ñi nga xam ne ñoo yor sunu kaaraange te pourtant ñooñu bu ñu jàddee yoon wala ñu fute mais dañ leen di teg si yoon wala ñu rajal wala ñu dàq leen médecin yi dañuy def faute du caaga ne ku dee rek ñu ne la yow yaa def erreur dañuy jël dugal la ci kasu bi ndax tey par exemple tey nga dem nga dem tribunal ñu lay atte ñu ne yóbbu nañ ko kaso loolu dégg ko si xel yanu na maanaa nga dem hôpital ñu ne faatu na ci dégg ko ci xel yanu na maanaa ndax faatu ci bërëbu hôpital moo moo ndax na fa ña fay dem en général ñu si bëree bëri mën nañoo jàpp ne mën nañoo faatu à tout moment ndax ñu feebar ñoo fay dem te am doom aussi xam nañ ne am na ay risques loolu kenn werantewu ko mais fii ñaata nit ñoo fi am doom faatu te doo dégg ñu ne sage-femme bi te doo dégg ñu ne gynécologue bi. Mhm. buñ ko waxee rek y' a problème. y' buñ ko waxee rek y' a problème il faut que médecins yi xam ne par très rarement ngay dégg. ñu ne kaay leen médecin bi euh, kii euh, bakkanam bii rot yéen am ngeen ci pas de responsabilité boo ko déggee Sénégal bala nga ko fee déggaat kenn xamul kañ la te bis yàlla sàkk nit di am doom par te dana faatu xanaa gis nga bu doon tey lii médecin wax dëgg la bis bu set di nga dégg ñu ne la euh, kii faatu si hôpital sangam woo nañ ay médecin sangam moo tax bu procureur wooyee rek am na foo xamante ni fa la ko teg man pour man médecin dañoo war a bàyyi mbir mi def procureur bi def li nga xamante ni tey mooy liggéeyam ndax bakkan bakkan euh, bakkan du caaxaan ndax ñoom médecin yooyu noonu nee nañu dañuy dem porte ci plainte te bu ñuy porter ci plainte si procureur boobu la ñuy dem porter ci plainte mm. bu dee tey nit tuumaal ne leen wax waxal na leen loo xamante ni du dëgg mm-hmm. te Sénégal gi ñun ñëpp xam nañ ne médecin yi wax dëgg yàlla am na si ñoo xam ne la yàlla xam doy na am na sàggante négligence boo xam ne bépp sénégalais boo xamante ni ñemewoo yàlla xam nga ne dem nga bi si hôpital. Mm. gis fa ay médecin wala sage-femme doxalee loo xam ne méngoowul ak jikkoy doomu aadama wala nit koo xam ne nit ko am yërmaane ga jigéen ñi dañuy am doom di matu di jooy ñu naa leen ba ngeen koy def dafa neexoo nag leen lu nekk ñu leen koy wax. Mm. di ko wax jigéen ñi. Euh, da ngay dem ci bërëbu fajukaay. Euh, nga war a am doom di nekk fa di kii ñu nekk fa di seetaan télé wala nekk si seen wey di defar wala nekk fa di waxtaan ay natt ak yoo xamante ni yu mais loolu nag wax dëgg yàlla ñun ñëpp nag ñun ñëpp nag ñun ñëpp nag ñoo ko gis xam nga Sénégal dafa wax Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moo tax nag léegi nag Sénégal ñun dem nañ ba nga xam ne réew mi xam nga fan lañ mujj maanaam dugg si oto moom egg egg egg moom euh, kii lay doon maanaam boo yeggee moom da ngay mel ni ku doon jéggi seraat léegi am doom ba mucc tamit suñu hôpitaux yi dana mel ni maanaam ko doon def concours wala examen ba am <laughs> ah ndax booy def sa sa bakkan si xottu gerte lay nekk <laughs> comme comme par exemple ñun liñ leen di balaa ngaa jox kàddu Jacques liñ mm. leen di reprocher mooy euh, waxuñu ñoom ay criminel lañ ay raykat lañ ainsi de ma man nee naa la dama respecter le corps médical mais dama ne liñ leen di reprocher te ñoom mënuñ koo dindi te sénégalais yëpp xam ni dëgg la mooy hôpitaux yi dafa am négligence notoire dinaa la jox benn anecdote bu ndaw euh, jour bi may def scandale bi ci augi bi foofu euh, ñëw si hôpital bi dama fa fekk koo xam ni dafa ànd ak benn sëram mu indi ko ndaw si dafa def comment diabétique xam nga luy coma diabétique c'est tellement grave dafa am jabet euh, mu dem ba ne comment nga xam ne pratiquement kiyatoo ñu indi ko urgence urgence man bi may yegsi ci hôpital bi euh, pratiquement sept heures moins six heures ma fekk ba ma ñëwee falaa ko fekk mu mu ñu teg ko ci chaise lant mu def ko ma crise diabétique la def ànd ak benn sëram taxaw gis nga crise diabétique urgence ñu ñëw urgence war ko jël gis nga urgence bi ñun toog nañ fa ba 9 heures dugaluñ benn malaat ci koo xam ne yaa ngi si hôpital bi pratiquement sept heures moins huit heures ba neuf bi ñu yegsee gis nga neuf médecins infirmiers yi pratiquement mët nañ vingt mais laaluñ kenn gis nga ki def crise diabétique bi mi ngi toog si biti si chaise lant bi ki ko indi xamatu sax fu muy féetal mi ngi dox ay va et ñoom ñu mel toll ni vingt si si si euh, si urgence bi di dugg di génn de sol seeni blouse laaj ma lu ñu doon lijjanti naan dañuy xaar foberekat yi fobere ba pare ñu pare de am ñuy dem di lijjanti ay ndékki ndekki ma ne la ki def crise diabétique toog loolu du ñoom duñ ko weddi jour boobu man man dama fàtte sama malade ñu koy romb de 9h jot ñu ñëw de ñu ne ñoom 9h la ñuy commencé dañuy xaar urgence nga ne 9h ngay commencé est-ce que yow Sylvie est que yow yaa ngi may dégg ku indi urgence ñu ne dañuy xaar médecin yi ñëw 9h la ñoom 9h ñu ñëw au lieu que ñu jël gars yi. les urgence yi ku gi jël def crise diabétique comment diabétique ñu nekk fa di ndékkeeg di di di di di doxantu di waxtaan ak di tàppasante di di ree mel ni di romb nit ñi gis nga kooku avant ñu koy dugal mais dama ne mais ñii mais mais kooku su kooku jour boobu jour boobu ñoom eh. su kooku dee dee woon foofu comment diabétique ñu koy si nga war ko dugal urgence taf taf sept ba neuf heures ba dix heures nga war ko jël mais kooku su décédé woon foofu ñoom dañ si am part de responsabilité bu mag ñoom loolu mënuñ ko dundi loolu négligence la te négligence dafa am si hôpitaux yëpp du ñëpp nag man je respecte mais daf fi am ñoom munuñ ko dindi parce que kooku tey bu fa faatu woon ñoom dañ see am une grande part de responsabilité parce que munul nit munul def crise diabétique jóge këram ñu indi ko comment diabétique pratiquement sept heures mooy mu toog si hôpital bi chaise roulante lañ ko teg xam nga yow comment diabétique ni mu grave ba pratiquement 9h nanguwuñ la laal ñu ñëw naa dañuy lijjanti ay ndékki di waxtaan wax di n'importe quoi bu fa décédé woon ñoom dañu si am pas de responsabilité waaw xam nga euh, ci différent bi ma gis euh, ak procureur ak ministère bi euh, loolu xaw na sax ñaaw mais man li ma bëgg rek xam ne ci ministère de la santé surtout ci ministre de la santé docteur Marie Khemesse Ngom mooy il faut aussi mu commencer def la part des choses entre acteur de la santé bu mu doon dëgg syndicaliste bu mu doon wala bu mu nekkoon ak léegi position bu mu nekk bokkul am na yenn euh, liggéey wala yeneen ndombal tànk wala yeneen fonction bu ñu la ko joxee boo mënul def la part des choses bi yóbboo nga delloo ko xooli leneen wala nga continuer sa liggéey continuer sa syndicalisme ba ñu waxuma mu incriminer corps médical bi mais quand je vois ci biir communiqué mu naan euh, le ministère manifeste son soutien à l'endroit du personnel de santé ma ne mais tiens yow lii xew am na mais yow au moins boo mënoon affiché euh, kii position de neutralité wala nga bàyyi yoon def liggéeyam munoo jog daar atteeguñu sax ngay manifester ce soutien à l'endroit di personnel de santé c'est comme yow da leen di encourager sax dem leen grève yi wala dem leen kii yéen nekk si dëgg man na wax dëgg yàlla euh, wala dangay solidarité ak ñoom alors que ñun fii laaju ñu ministre bi solidarité ak euh, personnel de santé ñooñu bu ñuy wax fii waxu euh, payoor ak waxu mi teg yooyu wala bu la neexee nga solidarité ak ñoom te loolu gëw ma ni bu ñu yeggee foofu dina solidaire ak ñoom parce que loolu ça va peut-être lui directement mais lii aw askan la bi nga xam ne ñu am ab nakar nit ki ñëw faatu ci condition yu atroce ba léegi bon c'est vrai que yëf yi leeragul moo tax sax ñuy xaar nag euh, yëf fu mu mujj ak yoon mais loolu en tant que ministre de la République war nga d'abord xaalaat askan wi balaa ngay xalaat sa personnel de santé loolu man dama jàpp ni foofu njuumtale du position euh, bi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci ministre de la santé léegi nag euh, ci personnel bi ak sa taxawaay parce que tey maa ngi déglu euh, docteur Yiri Camara mu naan kenn dootuñu tëj kenn dootuñu lan man ma xamoon loolu fan la ko teg lan mooy kenn dootuma tëj. boo fi defee lu ñaaw kay xanaa président de la république sax bu fi defee lu ñaaw. Mm. yoon may na ñu tëj ko parce que il est d'abord citoyen avant d'être président de la république yow nga ne parce que médecin la kenn dootu la tëj. Mm. loolu foo ko teg. parce que wax dëgg yàlla ci faute professionnelle parfois wax ma ne bii moom la parce que dañuy xaar yoon di mujj wax procureur wax na mais bon moom mettre des poursuites la dinañu xaar xëy na attekat bi li mhm. muy wax mais loolu yëpp euh, ñu jox leen tamit euh, présomption d'innocence loolu baax na ci parce que ba fii ñu toll moo tax may ñaawlu sax position non seulement bu ministère bu ministère bi mais bu syndicaliste yi ñu yëf yaa ngay dem ci yoon mhm. waxuñu dañ leen condamné déjà garde à vue mais bàyyil ba ñu ñaan lii atte nañ leen ba lii wala même ci atte bi sax bu fekkee da ngeen solidaire autant mhm. xool leen avocat yi gën a baax ci Sénégal ngeen jëlee leen ko ñu defendre ko loolu yëpp bokk na ci solidarité mais solidarité mooy yow kenn du laal sa naataango même mu fote mm-hmm. non mais franchement xaw ma loolu fu ñu ko teg dañ ko bëgg a def fii yoon xeetu chantage la bi nga xamante ne état ci boppam parfois mooy wane faiblesse bu jéggi dayoo mm-hmm. te loolu ñu ko tàmmalee médecins yi bu ya bu ëllëgee enseignants yi def ko gannaaw ëllëg ñeneen ak ñeneen def ko euh, réew mi nag ci anarchie totale lay nekk lu waay neex def gis nga même médecins yi parfois dafa am ñoo xam ne da ngay wax sax est-ce que ñii vraiment euh, yor nañu xolu euh, doomu aadama dañuy grève nga gis nit nekk ci jafe maanaam du ñu la faale du ñu la du ñu la lijjanti médecin yi il faut que ñoom ñu comprendre benn mbir du ñoom kese ñooy def ay faute wala ci seen ci seen liggéey am na si ñu bari ñoo xamante ne tey boo demoon ci kaso bi euh, ndax nit ñi chaque jour dañu naan médecin yi li ñuy liggéey seen liggéey nangam mais médecin yi am nañu njariñ ci dëkk bi mais il faut que ñu xam ne ay nit ñoo leen jàngal mais yow kila la jàngal ba nga man di def sa liggéey mais kooku nan nga ko ëppee njariñ nan nga pay njariñ policier bi nga xam ne dafa bàyyi soxna bàyyi ay doom wala gendarme bi wala militaire bi dem guerre yi xam ne à tout moment mën nañ koo rey mais kooku même bu defee njombe ci liggéeyam nañ koy jël dugal ci kaso bi. te muy incarné yoon. et puis kenn waxul tamit kenn waxul euh, kenn du faatu. parce que médecin ñun chaque minute qui passe dans ñuy personne qui. mais nañ wax am na ku dee fan wala dante wala feneen ak feneen. mais nañ ko leeral kay nañ ko leeral kay wax dëgg yàlla bu dee ñoom defuñu bu dee ñoom defuñu a gën a kontaan ñu leeral ko. Hmm. mais fii danañ dem ba nga xam ne kenn dootul amati ka sax jéem a jël sa doom muy nekk médecin wala mu nekk sage-femme wala muy nekk dara ndax seen der mooy mujj yàq. Mhm. ñu dem euh, wax politique Malick Gakou grand parti démb la officialisé candidature am pour élection présidentielle atum 2024 moom jàpp nii moo am le meilleur profil ngir mu changer euh, Sénégal Abdou Khadre kan kan nga wax. waaw baa leen ree gi nit ku sérieux moo wax nag. mais Malick Gakou mu ne moom moom daal moo gën a yell. ah waaw vraiment loolu peut-être moom euh, moom xalaatam la. xalaatu Malick Gakou la waaye nag 2024 euh, ñu bari ñoo ngi ñoo ngi déclaré seen euh, seen candidature <laughs> moom moom xam nga Malick Gakou grand parti sax boo xoolee <laughs> mais Sylvie. grand candidat grand parti. waaw Sylvie euh, mënoo di poser question pare di reetaan. yow mu yàgg indi réew kan. xam nga nag wax dëgg yàlla maali Gakou moom dama ko waxoon benn waay koo xam ne da ànd ak ma Madické Niang si parrainage 2019 damaa dem fekk ko fi quoi ma dem. Euh, gis ko ñu waxtaan ni ak euh, maître Madické Niang mais keroog maa ngi ko gis euh, kolu kolu mbubb mi kolu mbubb mi ñàkk daal ñàkk ba ba ba. ba tilim rek waaw ba tilim noonu. <laughs> mais après ma gis ma maître Madické Niang maanaam ak ni mu doon defee. maanaam ful la jeeg fayda ci daal xam nga tey bu doon télé télé la wala rajo sax dama ne au moins peut day def semblant. mais foofu micro nekku fa journaliste nekku fa ma gis euh, gëm-gëm bi mais ma dikk ñaa am gëm-gëm ci mbirum parrainage bi bi ma génnee euh, ki yor communication ñuy waxtaan nii ma ko waaye yow est-ce que kon ndek kon yéen gëm ngeen ne <laughs> man ngeen gagné deux mille dix neuf ma ko yéen ma ne ko man pour man vraiment da ngeen ni da ngeen ni def kii rek. di xam nga jay gis nga nit ñi Sénégal yi nit ñi dañoo mën di jayaate <laughs> wax dëgg yàlla boo jëlee euh, yaawu jaal tey nga bëgg tëggal combat ak Modou wala nga bëgg koo tëggal combat ak Balla Gaye problème day am <laughs> gis nga nit day xam boppam euh, xam sa bopp si jaam yàlla bokk nit day waxtaan ak njegenaayam Malick ko moom tey amul benn représentativité bi ci commune bi mu dëkk wala ville bi mu dëkk di Géejawaay moo tax moo tax élection yi passé su ko leeroon leer ne ko géej euh, Guédiawaye ñoom dañ koy gagné dina jéem a nekk candidat ci député yi mais dafa daw dem ci liste nationale boo xoolee élection <laughs> législative yi aussi élection euh, locale yi Malick Gakou présenté wul foofu nga ah, xam ne gis nga non bon mais bu doon Malick Gakou amul courage politique Malick Gakou amul courage politique tey par exemple tey am na sañ-sañ nag mu ne damay dem euh, deux mille vingt deux mille euh, vingt quatre mais xaalis bi mu si bëgg def bu ko see ñàkk vraiment loolu man naa ñàkk. Mm. ndax tey man pour man xaalis boobu mën na seet bu ko mu ko moomee boppam mu lew ko. <laughs> bu ko neexee mën na seet tabax ay poste de santé ci Sénégal gi yëpp dimbale ci ay nit loolu jàmm yàlla. Ah, waaye waaye Malick Gakou tey ñun ñëpp <laughs> xam nañ ko yow Sylvie yéen ñii ñëpp tey bu micro yi tëju woon xam ngeen ne Malick ah, Gakou. Ah, kenn non non 2024 Sénégal di ko sénégalais di ko voté man jongante bu ma dem dafa may leer ne man bu ma leerul man dinaa def sama sondage ci askanu Sénégal ñu xool man fan laa leen toll ma doog a posé candidat ah, ku la wax deful ah, sondage non mais mais Malick Gakou wax dëgg yàlla bu defee sondage kon ma xam ne sondage bi mu def euh, sondage bi def baaxul <laughs> beneen bi moom nee na moom mooy candidat ñi nga xam ne tey euh, ñoo sonn ñoo sonn dañoo am ay jafe-jafe tey par exemple tey ci langue politique gi mais ci langue politique xanaa boo tegoon Barthélémy Dias ak Malick Gakou sax ñoom ñaar vraiment euh, kii amul foofu. Euh, <laughs> waxutuma laa comme waxutuma euh, deux nag élection 2024 yoo xam ne moom nee na créewul grand parti pour bootu ci ci ci ci beneen ci beneen candidat wala beneen parti loolu c'est vrai. mais daf ko waroon a liggéey mbir mi du wax yam si wax rek. mais ñu mhm. ñëpp xam nañ ne Malick Gakou amul benn poids politique. Mhm. grand parti du parti boo xamante ni tey. du bu euh, grand vraiment du bu grand. <laughs> Jacques ñëwal. <laughs> nga. <laughs> yaa wax lépp ga ah, ah, ok yaa mais wax dëgg Malick Gakou dafa yor de waroo ko woon sànni. Euh, Malick Gakou tamit acteur politique la. acteur politique bu am sañ-sañ bu am ay ambition comme n'importe quel sénégalais jili mii bu ko neexee mu xëy suba woote presse bi ne candidat la défendre li mu ay idéam fësal projet am commencé ci liggéey fii ak deux mille vingt quatre xëy na yàlla. am nañu ko cërale mais ah, samay woolu. Eh, <laughs> xaalis bi nga yàq kat. ak sama sàmm wala xaj na si diw. kaay bi fontoon nit ñi non ko droit. Oh, au sérieux bàyyil ko léegi nag non euh, léegi nag moom. Malick Gakou mënuma wax amul sañ-sañ wala amul xam-xam bi parce que quand même nit ju dul nekk président. Hmm. wala ñi fi nekkoon président ak yeneen réew ak feneen ak. xëy na ëpp ñu ko jàng ëpp ñu ko jaar daar am na mhm. expérience tamit même am na instance yu mu kii non seulement ministre gi mu nekkoon jiitee na mhm. fi conseil régional bu Dakar nekkoon numéro deux bu AFP jamono yu AFP ah di gënoon a am doole bokkul ak AFP bu léegi bi bootu bi am couleur marron mais AFP ba muy AFP yooyu yëpp en tout cas xeex na ci wàllu politique tamit am lu mu prouvé mais moom Euh, li ñuy wax parfois il faut battre le fer le fer pendant qu'il est chaud. Mm-hmm. moom il a rate cette occasion dafa amoon occasion mu net mooy élection euh, locale deux mille euh, bi ñuy fal. Aliou Sall mais boobu. ñëpp xamoon nañ waaw 2014 ñëpp xamoon nañ ni mali Gakou était mieux placé pour ñu fal ko. il avait tout jamono yooyu mu ngi woon fës ci sport bi ak école de lutte Balla Gaye ak Guédiawaye football club bi mu géré woon bon fësoon na déjà ci Guédiawaye et puis mhm. même du Guédiawaye envergure nationale la amoon jamono yooyu mu nekkoon euh, wax dëgg fa yàlla candidat bi ñëpp jàppoon ni Malick Gakou euh, parce que daf ko doon liggéeye sax xam nga nit ñi balaa ngay laaj sax seen baat surtout ngay policier mhm. bokkul ak nga mhm. jóge euh, di candidat indépendant wala jóge ci société civile policier moom boo bëggee dara dafay am ay jëf ay kàddu yi nga xamante ne moo koy wane Sonko mii balaa muy wax candidat la 2024 ñëpp xamoon nañ ko la surprise aurait mhm. été mun yoon na gars yi du ma candidat mais def na li nga xamante ne bu nekkul candidat sax day bett nit ñi mhm. Mhm. c'est ça le problème ak oh, euh, Malick Gakou du bett nit ñi naan ko force da ngay nekk candidat <laughs> wala élection da le problème de Gakou c'est ça et puis mu raté occasion yooyu ba pare mooy leader yi nga xamante ne du ñu ñeme soobu yëf yi hmm. affaire yi da ngay ñeme comme législative yi par exemple même locales yi lii gars yi di kii Sonko ne leen man damay dem nekk candidat Ziguinchor Sonko ba mu wax fi candidat Ziguinchor y' a même des analystes nga xam ne dañuy jàpp ni non c'est risqué yow envergure nationale bi nga am ak yooyu boo demee ñàkk une localité ah loolu dafa am message bu muy envoyé ak yooyu mais wax dëgg yàlla ku mënul gagné ab localité. wax dëgg yàlla nooy gagné réew. wax dëgg non loolu tamit foog ngay def politique am na yeneen yi nga xamante ne logique la lii mooy indi lii lii indi lii. mënoo ñëw fii nekk président mm-hmm. amoo sax men mm-hmm. benn base xanaa njiitu réew mi Macky Sall mi sax amoon na au moins. Fouta Fouta ak Fatick mi mu jël teg poosam ba pare balaa. muy yóoti amul benn maire amul benn maire wala benn député bu ñu naan la grand parlement. tënk ko ci deux minutes. ñu jàll ci beneen. maa ngi gaaw a bëri parce que dafa mhm. bokk ci politiciens yi nga xam ne dañoo dafay yaru <laughs> maanaam dafa yaru <laughs> am am am respect daal doo doo même soo ko bëggee attaqué sax doo xam naka lay attaqué Malick euh, Gakou te il est tellement poli mhm. euh, loolu gis nañ ko si moom mhm. euh, Malick am na ñoo xam damay jàpp ni parfois élection day jot ñu yor xaalis bu bari duñ xam nuñ koy def jàpp naa ni Malick Gakou da see bokk élection day jot mu am xaalis xamul nu muy def xaalisam mu ne day nekk candidat <laughs> te tamit Malick Gakou mu ne dafay nekk candidat 2024 am na si droit sénégalais yëpp mooy bi ko Sonko waxee ay candidat ma ne la man mii sax Sylvie candidat la su ma amee caution damay dem mm. yaa ngi dégg am ñëpp am nañ droit ne mais ñi naan damay nekk candidat damay nekk candidat da nga xool ba sa cappaandaw ba par rapport ak ñi déclarer seen candidature ak ñiy nekk candidat xam nga ni ñu bëri dinañ ko wax te du ñu nekk mm. candidat mm-hmm. mais man pour man euh, Malick Gakou à un moment donné su ma waxoon ni euh, su ma waxee ni damay nekk candidat dinaa ko euh, su ma waxee dama bëgg a président dinaa ko gëm mais instant bi dama yaakaar ni euh, Malick Gakou dafay nax boppam parce que mënoo am base politique waa Géejawaay jox la bopp nga sacrifier pour ma ab Malick Gakou amul ambition présidentielle naka ngay amee ambition présidentielle politicien boo gis fii dafay fexe am base da ngay gis benn politicien xamuñ ko sax mu nekk si benn quartier wala benn gox commencé non koo xam ne sax waa nekk fa di def social di def social parce que mi ngi ut base local ñëw mu présenter wu ñu fal ko mi ngi wut gaz noonu la jàppandal foofu ngay commencé déjà ku bëgg a nekk njiitu réew foog nga am base politique fii njiitu réew yi fi nekk yépp am nañ seen base politique euh, Macky Sall ba léegi sax boo demee Fatick même bu fa bàyyee Matar Ba moom Fatick dañ ko jox bopp dafa amoon base politique am mm-hmm. dem dafa nekk si euh, lu fondamental te si politicien même ñiy doog a dugg sax nii da ngay gis koo xam ne sax euh, waneegul ni dafa am ambition politique mais soo gisee ñu commencé di def social seeni i kàcc seen gox. Mhm. Euh, seen i euh, région man même professeur nu mu tuddati sax Daouda Ndiaye professeur boobu je pense te mu doon def buzz bi si temps Covid bi rek est-ce que c'est Daouda Ndiaye xaw ma. Daouda Ndiaye waaw Daouda Ndiaye gis naa muy def ay social yu bëri gis nga kooku balaa yàgg di nga gis ni am na ambition politique dama lay waxal ni déjà bala ngay fësa sa ambition sax da jéem a am sa localité benn poids. gagné sa kii non mais et puis nga am régularité. parce que moom dem na ci social kan. waaw léegi Malick Gakou. moom nga am audace bi. loolu laa la wax moom nag bu Ahmed Aïdara jógee fa lay ah. jëloon seen bopp jébbal ko Malick Gakou géejowaay. Malick Gakou moo fan moo moo seen lépp yaa ngi dégg élection yi ñëw man xam nga hmm. fan man sax du fu ma meree Malick Gakou hmm. mooy ba mu ne bokkuma élection jot mu ne ñëw bokkuma xàllal yoon Alioune Sall ñu bëri sax jàpp nañ ni Malick Gakou dañ ko jënd pour Alioune Sall gagné Guédiawaye mm-hmm. mais Malick Gakou ni mu meloon Guédiawaye ak waa Guédiawaye ni ñu ko bëggee woon lu mel noonu sax kon xaw ma ku am ambition présidentielle di ko sàggane euh, yoon may ma rek nga xàllal yu Alioune Sall ba mu gagné la ba tey jii kii nekk fa nu mu tudd ti amee ay dara mais Malick Gakou bu amoon dëgg-dëgg ambition présidentielle moom du sacrifier base am boobu di géejawaay du moom moo ma ñasa leen sacrifier te du moom non damay wax maanaam eh, foofu la ratee am na boo xam ne bokkul ñas ba mu ko bëggee sacrifier dafa génn ay fee non daf ne bokkul non non non mais am na ñi nga xamante ni saa waay Alioune Sall bu gañee géejawaay pour yow ay ay Khalifa Sall boo xam ne Barthélémy bu nekk candidat bi dina kon foofu la tàggaloo John Mac moom ak la yaa koy mais demal nga laaj ñu dëkk ci Badio Camara eh, ah kii demal nga laaj ñu dëkk géejawaay bi bi ba gàkku ne bokkul dañ koo mere parce que dañoo bëggoon bokk gis nga donc mënoo rate loolu ñëw naan damay nekk candidat da yàq xaalis doo am dara dafa am ñu bari ñoo xam ne Jacques su demee doo am dara dafa yàq xaalisam xaar dafa am ñu bari ñoo ngi déclaré seen candidature ci 2024 mais gis nga fii Sénégal hmm. bu dee jayante wuñ gis nga ay Déthié Fall ak ñu bari ñoo ngi ñoo ñenn ñu njot nañ hmm. mais dama ne la gis nga Ousmane Sonko Khalifa Sall Karim Wade ñii si opposition bu Sénégal bii fi nekk nii ñett ñii ñooy candidat yi nga xam ne ay candidat yu yanu yu yanu maanaa lañ ne. merci merci beaucoup merci beneen beneen débat dinañ ci ñëw. ñu candidat bi ci gën a yenu eh, ah. eh, euh, ak euh, magistrat bi di Mamadou Badio Camara moom mooy euh, le nouveau président du conseil constitutionnel. coow li bëri na lool mu remplacer foofu Papa Oumar Sakho occupé woon na post yu bëri du ma jaaraat ci li mu occupé mais nekkoon na itam chargé de mission euh, ci OIF Jacques. waaw Mamadou Badio Camara ni nga ko waxee que ñu ràññee la en tout cas ci magistrature bu mhm. Sénégal euh, kon euh, en tout cas. am na une riche carrière ça il faut aussi l'accepter plus de quarante ans d'expérience ak fas yu mu jaar yëpp yëpp yëpp yëpp ah daanaka ah, ci ëttu attekaay yu bëri tam yu mu jaar ba ci biti réew sax France mhm. dem États-Unis kii yu bëri yëngu na sax ci wàllub ak ak yelleef doomu aadama mhm. donc loolu c'est bon à signaler ñu ñëw nag dénk ko euh, ci moment bu crucial ab institution bi nga xamante ne bu ama am solo la di conseil constitutionnel nga xamante ne Euh, conseil constitutionnel boobu mooy juge de la régularité des consultations nationales maanaam lépp lu jëm ci élection muy présidentielle législative locale yooyu yëpp euh, li mujj li ci conseil constitutionnel la candidature yi ci moom euh, résultat définitif yi yëpp ci moom donc mu nekk tuwaatekaay bu am solo te lépp lu jëm ci constitution ak li ñu ñuy fexe ba tënku ci charte ndeyu réew mi wax ñoom ñoo koy ñooy veiller pour lépp ñu daal di koy respecte kon ñu am sax Mhm. ndogal ci institution ak yooyu parce que même en cas de vacance du pouvoir ñoom ñoo koy demal ñooy wax ñu ramp kii njiitu réew mi par exemple nekkatu ci possibilité euh, jiite réew mi keneen mooy ñëw président assemblée nationale yooyu yëpp après ñoom ñoo koy def ñooy sax installer le président de la république pour euh, dire l'importance en tout cas de cette institution mi nga xamante ne comme moom Mamadou Badio Camara moo ko euh, jiite d'ailleurs sax dans certains pays dans plusieurs pays membres conseil constitutionnel seen mandat duñu ko renouveler tout ça c'est pour un peu éviter à ce que ñu leen di corrompre wala di kii ñu am seen indépendance dañuy jàpp ne seen mission bu jeexee jeex na ñeneen ñëw donc yooyu yëpp bokk na ci li tax donc indépendance boobu daf ci am solo mais malheureusement bon je vois que en tout cas une certaine opposition dafa am déjà fi ñu ko catégoriser dafa am fi ñu ko teg euh, nee nañu déjà c'est un un proche de euh, du président Macky Sall. Mm. alors que ñu ngi dem ci 2024 c'est vrai que de son côté lui-même Macky Sall waxagul euh, nii wii nii non ci candidature am déet mais ñu bëri ñu ngi gis ni acte yu muy posé xëy na euh, ci loolu la jëm. ñii naan dañ ko indi pour mu valider ko loolu yëpp en tout cas li ci kanam raw li gët mais euh, boo xoolee parfois ci yenn mbir yi xel mën na ci ñaw ku mel ni man personnellement c'est une analyse euh, ci ni ma gisee taxawaay taxawaayam ci dossier xalifa Sall ci dossier Karim Wade yenn kii ni nga xam ne dañ ko saax saaxee sax gaaw parfois sax teguñu ko waxuma ñoom xalifa ak ñoom Karim defuñu mais procédure bi ak yooyu nu mu euh, jàllee wax dëgg yàlla sa xel dina procédure bi sax bataille boobu mhm. buñ ko yóbboo ci yenn institution internationale yi ci wàllub yoon mhm. ñu bëri dañ ci gàntal état bu Sénégal ndax dañu jàpp ne nuñ ko traité euh, tegul ci yoon mais loolu yëpp euh, c'était quasiment sous sa houlette mhm. donc loolu xel mën na <laughs> ñaaw tamit ci lii di ñëw mais lii am am en magistrat la boo am expérience bu ñu jàpp ni normalement bu dul parti pris am na war na mën a remplacer Sakho muy génn. Mhm. ji rek. waaw xam nga ay jaar jaar njàng mu kaweeg nang ma naam loolu lépp ak njub moo ko ëpp moo ko ëpp solo <laughs> euh, li gën a garaaw mooy ku boroomam xam-xam bu dënk loolu dafa jar a moytu waxuma nag baajoo ko dëng la waaye réew li ëpp solo ci réew mooy wàllum justice. Mhm. réew boo gisee réew mu tàkk rek. nit ñi dañoo dem ba amatuñu confiance ci justice ba loolu mooy taalum réew mhm. mais nit ñi bu ñu amee confiance ci justice bi réew mi ban naa bañ a tàkk te boo xoolee tey conseil constitutionnel moom ci jëmmi boppam mhm. fi ñu toll nii sénégalais yi dañu amul waxuma la baajoo kamara de mais jëmmi Macky Sall la conseil constitutionnel vraiment sénégalais yi amatuñu yaakaar wala confiance ci li nga xam ne mooy conseil constitutionnel mhm. dama jël nag Mamadou Badio Camara en tout cas waxuma la dina valider candidature Macky Sall mais am na ñeneen ñuy poser seen candidat est-ce que leen a jéem a fakkatal wala dara il faut que mu xam ne ba muy jàng ay waajuram di ko jàngal muy am ay lijaasa booba Macky Sall amaana euh, ñoom ñaar sax xamantewuñu wuñu woon. Hmm. ba muy jàng jàng na ba toll fi mu toll damaa jàpp ne Macky Sall mii nga xamante ni presque wàllam jeex na. warul laa jaral benn sénégalais di si xuseeku. Hmm. wala benn sénégalais di ci <laughs> tout à fait normal parce que xamoon nañ ni Pape Oumar a dem euh, donc bu ñu nommee euh, Badio Camara c'est tout à fait normal pour hmm. pour man jàpp naa loolu le fait que nag euh, peut-être sénégalais yi amatuñ confiance ci justice dama jàpp ne ñoom ñi nekk ci justice bi ñoom ñoo war taxaw temm ngir xool naka la ñuy defaraatee mbir mi ba sénégalais am confiance ci justice pour mais pour man opposants yi foog ñu wax que Macky day préparer troisième candidature Badio mooy taalibe bi il va valider candidature ainsi de suite de toutes les façons ku fa mënti nekk rek dañuy wax ne yow lu la Macky sant ngay def que ça soit Badio wala Pape Oumar Sakho mais c'est normal euh, que le dem na retraite keneen remplacé ko man gisuma si dara lu jara coow de c'est tout à fait normal. merci beaucoup Yega tàggatoo rek